Euh, peste sax moom bu weesoo moom am na benn internaute bu koy laaj euh, nee na efficacité am lan la mu ñu xam naa li mu wax rek la la la reprendre parce que nee na mënu teg benn plan boo xam ne nii euh, moom nga tuddee programme Sénégal émergent adduna bi yëngu tuuti rek mbir mi mel ne lu ndërmee lu te peste moom mënu koo mënu koo mënu koo gàttandu. Hmm. Hmm. waaw jërëjëf man xam naa ne daal tey moom grand place laa ñëw xam nga grand place lu neex waaye wax. et wax ji léeg-léeg day safaanoo. Hmm. Euh, bon moo tax nangu naa ko. beneen bi mooy monsieur Fall. Euh, waa dëgg la non non non damay damay damay justifier parce que dem naa bay moom je me suis am na am na xalaatin bu ma doon xalaat ci biir. Euh. waaye bi ma xoolee fii gis grand place ma ne ah. <laughs> jàmbaar dafa mel na yow est-ce que xam nga ci li nga ñëw mais alhamdulilah. beneen bi mooy Seydi Fall. Euh, euh, Macron ci Tshisekedi ëpp xaalis euh, ci Tshisekedi ak Macky Sall ëpp xaalis Macron. Macron kooku waxi wax gooy sànni la rek mën loo ko prouver. nit dafay moytu am na loo xam ni plateau télévision dafa doy waar daal. Mm. taxaw ci di sànni yenn yi nga xam ni amuloo ci benn preuve. je vais vous envoyer xaw na xaw na may ma may ma may ma may ma bu pare rek may ma même fii ci Sénégal li ñuy wax ci euh, alalu Macky Sall. ay nit a ko sànni rek. mais koo ci woo ne que kaay prouver ma ko mënu ko. Hmm. kon nag nañu maandu ci nit ñi daal. Hmm. te xam ne réew mi la ñuy waxtaanee. Hmm. ak àddina si. ñu yem ca daal. parce que day dañuy gën néewal doole. et Mounirou d'accord question bi ngay posé moom la ñëpp di posé. mais question bu du dara lu may néew doole ci tooñ la bokk. wa ma min daabatin fii laa ilaa ala ghayri rizqiha e eh, tëjal sa buntu kër ak sa njaboot nga ñu toog xaar yàlla mu ñëw indil ñu boo defu ndànk de ah, sapeur pompier dafa ñëw di jël si ñoo xam ne xëy na kenn mënatu leen gis kenn mënatu leen xool yàlla dafa bind ñu sabablu wolof nag day wax ni ñàkk pexe pexe la boo demee ba ñàkk pexe nga xam ni yow tey jii ay réew ngay gérer Cheikh Anta wax na ko depuis longtemps nee na Afrique tant que boolowuñu nekk benn réew une république fédérale am une armée fédérale am une banque centrale fédérale mais duñu dem kañ la Cheikh Anta faatu 86. Cheikh Anta ba muy développé tey que année cinquante yi la Sénégal gii nga xam ne tey jii benn waxuma la PME mais benn coopérative française bu am doole moo ëpp. chiffre d'affaires am moo ëpp budget Sénégal mais nooy compétir sur le plan international suñu réalité réew yi yooyu la boo bëggee taxaw naan waaw damay toog am nañu lépp nangam nangam truc bu ñëpp amoon lépp euh, RD Congo bale ci sekki di kii ba ban dëkk ka ëpp minerai ëpp richesse Guinée Sékou Touré ngi ni sawet nangu woon na boppam tëj lépp nekk ak moom foofu fan la Guinée mujjee donc dafa am euh, li may wax man patriotisme boo xam ni maanaam bëgg sa réew boo xam ne bëgg sa réew dof la li may wax la patriotisme fou ak bëgg sa réew boo xam ni bëgg sa réew bu tegu ci xel la bu tegu ci nite te nite mi ngi doore ci xam la nga mën ak la nga mënul parce que nit li kay sànq lu bare xam nga mooy lan sa xol bëgg loo xam ne sa yaram attanu ko daan naa daw 15 kilomètres dama daan jóge université dem ba wakaam dellu si waat te du ma taxaw mais léegi mënatuma ko su ma ko bëggee sax mënatuma ko. et ci réew yi aussi noonu la demee. économie lu tax ñu tuddee ko. économia mooy nu ñuy yoree kër. économie gënul compliqué lool. boo yoree sa kër sa dépense matul. sa kër amul ndox sa kër amul làmp faawu da nga jéggaani. boo ko jéggaanil ki nga dendal daa ko jéggaanil ca mbokk ma wala daa ko jéggaanil ka nga yaakaar mooy suñu situation réew yi rek kon nag mënuñu taxaw di fëgg suñu dënn ñun la ñun la ñun la fekk ne danañu tële dañu suñu suñu am am suñu koom-koom dafa néew réew mu mel ne Sénégal bu defaree plan bi mu defar Covid bi ñëw impacté Sénégal impacté àddina sépp lu toll na États-Unis di def plusieurs plan jël des milliers de milliards de dollars di ko dugal ci économie am te mënu ko saafara France noonu Allemagne noonu FMI bi nga xam ne ñeenti yoon la mos def ay euh, ay droits de tirage spéciaux ci ci niveau bi génn cette fois ci lu mu mosul génn six cent cinquante milliards de dollars mais bon nga xam ne li xew ci àddina si mais boo loo gëmm gëmm gëmm nangul nit dafa am catastrophe bu xew ci réew mi hmm. nagam nag ñoo ñëw ci muccul waxasama naag suñu réew Sénégal bi mais ba léegi Sénégal demandé gul rééchelonnement de sa dette déedéet actuellement réew yi ko demandé Éthiopie la euh, nam tuddee ci euh, Éthiopie la am na yeneen ñaari réew. Soudan je pense am na am na yeneen yeneen ñaari réew ñoo ko demandé Sénégal demandé gu ko. Soudan andi ko 5000 moom. 5000 voilà Sénégal bi ñu suspendre paiement euh, des intérêts de la dette privée. yeneen constitution yi mu ngi koy respecté Sénégal la ngi lever de l'argent ci ci ci ci ci nam tuddee ci les ci marché financier yi mhm. kon nag du point de vue de la gestion réew mi mais ñun dañu am un problème collectif Afrique mënul dem te ñun ñëpp lëkkaloowuñu ku ci bëgg a dem ci yow kenn damay émergent man en tant que Sénégal kese bien sûr mën nga ko amorcer mais il faut que à une échelon à un échelon régional ou continental ñu jëm envisager yooyu ñuy wax borom xam-xam yaa ngi koy wax patriote yaa ngi koy wax africain yi parce que tey jii ne de wax naa ko sama njëlbeen wax boo amoon une banque centrale africaine tey jii daa am ay devises yoo xam ne même bu doyul daa mën dem sur le marché financier et ensuite daa mën a utiliser surtout li ñuy wax instrument maanaam sos xaalis création monétaire ci droit de tirage spéciaux aussi ñu leeral ko suñu mbokk yi parce que droit de dafa mel na rek nat réew àddina sëpp bi ñu génnee ci deuxième première deuxième guerre mondiale bi dañ ni et àddina si dafa am ñaari problème mm-hmm. bu njëkk bi mooy pauvreté pauvreté beneen bi mooy problème mu inflation ak dérèglement monétaire yi nga xam ne moo indi woon la crise de 1929 mm-hmm. mm-hmm. ñu créé ñaari structure benn bi de banque mondiale mu occupé wu question pauvreté ak reconstruction Europe après plus tard les pays du tiers am nag liy occupé problème paiement yi ak problème mu taux de change ñu jël étalon or comme ni nga ko waxee tekk muy servir de base pour garantir les monnaies international mm-hmm. mais avec le développement de l'économie on a vu que lii mënatul dem mm-hmm. ñu xalaat ni léegi dañuy créer un actif boo xam ni mm-hmm. dañ koy tuddee DTS réew mu nakk léegi natt boobu dangay ñëw am loo natt loolu nga natt boo demee ba am ay difficultés de paiement wala yenn problème budgétaires yi ñu ni la kat boo ñëwee ci saasa mën nga jël genn wàll ga beneen genn wàll gi doo ko mën a gum jël bu jafee ba jafee nag conseil d'administration FMI réunir ñu seet ki bu ñu demee nag ba agsi ci crise boo xam ne ak na niveau mondial comme tey jii ni mu demee ci Covid bi ñu ni kat war nañu puisque FMI dafa am beaucoup d'or or boobu nag daf koy placer dafay jur ay intérêt et selon niveau or boobu muy def de la création monétaire sous forme de DTS non seulement mën nga di jël sa contribution mais mën na même di la lebal xaalis boo xam ne da koy rembourser ci loo xam ne dafay nekk un taux presque nul. et sur le long terme. ci foofu la ñu toll. seet nañu président Macky Sall dafa noonu plan Marshall. plan Marshall moo gënoon. ñëw fii indi ay investissement yu am solo. faire redémarrer la machine économique. moo gënoon yomb. mais tubaab yi nanguwuñ ko. et léegi nag nga am problème mu dette boo xam ne mi ngi ga mi ngi gàllu sa sa mbagg. secteur économique yi laan permettre nga fay que impôt yeeg euh, droit de douane yi ak yooyu daanu na mais il faut nga du pour fay sa dette sa bor beneen bi mooy foog nga fay say fonctionnaire foog nga fay ñiy jàngale foog nga doxal lopitaan yi foog nga doxal école yi et ak yu mel noonu foog nga am koppar yoo ci def et mu indi nag réew yi ci Afrique yëpp même Nigéria yi ñu doon wax Paul Kagame bi nga xam ne Sénégal presque héros la fii mais ma nga ma nga woon à Paris Nigéria ma nga woon à Paris ñëpp a à Paris kon nag ba wérewul fekk kon nag nañu bàyyi suñu xalaat daal di xalaat nii mel na ñun dañ nekk ci àddina mi bokkuñu ci nit ñi ay malaay du ñu malaayka ay nit lañu. li yàlla di teg nit daf ñu koy teg. te nag bi gën a metti bu muy teg nit ñàkk ci la bokk. bëgg sa bopp mënoo sa bopp. Cheikh Omar. yàlla mooy samadu. dëgg mooy ki nga xam ne bu ñëpp soxlaa ci moom lañ jublu. yàlla mooy xaniyu. mooy ki soxlaalul kenn. mooy ki ki léppam doy. ku dul yàlla. yooyu tel eh, yooyu mataloo ko. kon nag li ñuy wax na am fu ñu koy teg. fi ñu koy teg nag mooy ñun africains yi. France moom du jóg ci di ñu jëfandikoo. mais mbir mi muusante la. ci biir jëfandikoo bi ñun aussi am na loo xam ne mën nañ ko utiliser régler suñuy problème buñ ko bañ. am na koo xam damay dem di ka lebi sax xam naa ne léeg-léeg bu ma fa demee sax bu ma génnee mu saaga ma waaye nag puisque xale yi mënu ma leen bàyyi ñu euh, yendu añuñu fanaan reeruñu bëgg yeewooti ndekkiwuñu eh, bu may dem sax di fa am nu ma nu ma sëggee sax mu jox ma alal bu ma génnee xam naa ni saaga na ma mais ma dem dundal jaboot gi yàlla xam na ni toroxlu bi ma def yëpp njaboot a ko waral suñu réew yi foofu lañ toll kon nag xel nañ koy dugal ci mbir mi bàyyi di fëgg suñu dënn di dof dof lu di boo demee boo mbëkkee miir da ngay daanu dee te suñu réew yi soreetuñu foofu léegi nag li ciy suñu wàll muy ñun africains yi comme ni ko président Macky Sall waxee soo amul doolee da ngay wéeru ba ngay mën a dem wéeru bi xam nga mooy lan mooy co-construction boobu muy wax léegi du FMI mooy ñëw ni ñu ee eh, yéen Sénégal dàqal nangami fonctionnaire tëjal ñaar ñaar nangami entreprise supprimer internat yi yokkal njëg yi mu ni loolu amatul li ñuy bëgg léegi mooy ngeen ñëw ñun ñu définir suñu ay priorité ci suñu aw kay kaw ay priorité ñu mën a ànd seet nu ñu ànd liggéey su fekkee mën leen ko nag e nu golo xam boote donc euh, xam boote doomam mais lu mu metti metti du gën a metti ci ñun parce que ni ngeen ko waxee dëgg la xaalis boobu ñu wax parce que man fépp fu ma dégg euh, FMI ma dégg fa société finance internationale dégg fa banque mondiale mais damay ñaaw njort xam nga lu koy waral ku ndomin rey sa maam foo gisoo lu ñuul dangay daw mais situation bi suñu économie bi bi nekk désindustrialisation bi suppression internat yi suppression services sociaux yi et cetera et cetera économie presque rentière bi nga xam ne moom la ñu créé lépp ñun da ngeen koy exporté du ngeen sax transformé mënu leen transformé soxla wa leen industrie mais ñoom ñoo ñu dugal ensuite bu ñu fi ñëwee alal jooju ñuy wax réew tubaab yooyu dañ koy jël pour d'abord balaa dara bor yooyu ñuy fay muy boru seen entreprise yi alliance pour l'entrepreneuriat bu ñu ñëwee seen entreprise yi fii ñoom la ñoo jëkk financé dañu war nag lëkkaloo am taxawaay boo xam ne loolu daañ ko mën a bañ wala buñ ko mënul bañ sax ñu wàññi ko mais mënuñu ñàkk dem wuti seen alal parce que dañ ko soxla buñ ko bu buñ ko jëlul dee defe naa man mbir moomu li ma ci si mbirum émergence bi kii euh, euh, sëñ Mounirou mhm. loolu laa tontu dañuy jéem mais dañuy jéem ci réew mu new doole def nañu presque wax nga ko ci pendant six cinq à six ans mhm. am nañu ay taux de croissance yoo xam ne mosuñu ko yaakaar mais taux de croissance yooyu sax boo ci dindee le taux de croissance démographique deux pour cent mhm. boo amee six pour cent trois virgule trois pour cent moo la dese sa population vingt cinq ans yu nekk dafay doubler yow avec ce niveau de croissance même de 6 pour il te faut au moins 33 ans pour nga doubler le revenu par tête xool écart bi ngay am diggante 25 ans ak 33 ans donc la pauvreté se se creuse donc bu ñu surestimer suñu bopp président Macky Sall yenn président africain yi gàcce ngaalaama mais am am na luy ñuul suñu biir su ci ce que ñu ñu dëkk dégg neexul dégg problème gouvernance yi suñu réew yi bu ñu indee alal ji eh, eh, fa muy war dem yëpp léeg dafa dem wala nañ ko war a yoree ak nañ ko war téye nañ ko war a yaxanale duñ ko ko def kon kan ni defee donc am na loo xam ne suñu biir la bootum biir la kon nag Union africaine tey jii euh, dafa war am beneen taxawaay même sommet boobu ñuy wax bu G20 boobu man maa ngi ñaan Union africaine ñu indi sommet g vingt boobu ñu defe ko ci siège Union africaine à Addis Abeba sur le plan symbolique dana am loo xam ni dana ko wane. mais quand même quand je vois le le le, le président de l'Union africaine je vois tous les présidents d'Afrique qui se transportent en France devant Macron qui fait ces simagrées là mais vraiment dafay képp kuy africain xaw am un minimum de patriotisme am na loo xam ni vraiment dana ko dana ko dana ko dana ko dana ko dana ko gaañ ci gaañ ci donc day wane ni en fait suñu réew yi euh, euh, ñun ñi am na ay jamono et lu nekk daan nañ ko wax ci yenn question yi. Mhm. ñii di nekk à ñoo leen gënoon nekk à gauche. Mhm. anti impérialiste lañu woon. Mhm. ay nangam ak nàngam dem nañu ba suñu bakkan ñu ko doon jaay ci ay mbir. waaye nag eh, yàgg bawul dara. booy dem bay màgg. di dem di génn dem bitim réew. di xam àddina. di ko pratiquer di kii ak yooyu. Eh, eh, am na noo war a yeewoo sinon. dafay yóbbu suñu réew yi ñu dem ba mbëkk mur. te mbëkk mur yooyu nag n'importe quel démagogue. parce que am na ñoo xam ni tey ji ay naafeq lañ dañuy naxaatee. te nit boo koy nax danga koy nax ci la mu bëgg. wala la mu yaakaar ni dëgg la. boo ko ca sóoboo ba mu soobu ca. bu ca duggee buy mbëkk mur finalement kay char de combat lan indi waaye yow ay mitrailleuse ngay indi euh, euh, maanaam ñoom ñëpp nga nga faat leen. Mm-hmm. kon nag nañu def ndànk. am na discours boo xam ne ñu ngi koy tenir ci réew mi de toute façon am na loo xam ne bu ko Macron bëggee même suñu président yi bëgg ko mënatul nekk. parce que suñu peuple yi nangootu ko. ci thèse d'avril Lénine dafa révolution mi ngi ñor na bés bu ñi nga xam ni ñoom la ñuy jiite nangootuñ leen ñu jiite leen comme nañ leen daan jiite. bés boo xam ne ñay jiite. mënatuñ jiite comme niñ daan jiite. àddina si àgg na foofu. diggante Afrique ak Occident. léegi noonu la demee. su suñu réew yi aussi noonu la mbir mi demee ba nga xam ne ku ci adapté wu mën nga raw ku ci adapté wul le vent de l'histoire daf lay balay d'accord lii daal laa ci doon wax vraiment ci Mamadou Ibrahima Mamadou Ibrahima Fall bu ñu dégloo Youssou Diallo euh, dem ci dëkk yooyu mënta ñàkk euh, sàkku ji ci seen koom mënta ñàkk euh,